Aliou Faye ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. waa Rewmi euh, général. bu syndicat autonome liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk université yu nekk ci diwaanu Sénégal kuut xam nañ ko am na léegi njiit lu yees mi ngi tudd Ndéné Mbodj maître de conférence titulaire la ci université Cheikh Anta bu Dakar waaye laata rek ngay joxe sa appréciation ci nomination bi est-ce que mën nga nu wax euh, bilan euh, ki nga xam ni tey moom la fa wutu mu di màgget seen euh, gis nañ ko étudiants yi ban ko teggee ci poste bi ni mel ñu doon jubilé ci biir campus virus bi alors lan lañ mën a jàpp ci wàllu wi ni mel. Euh, maa ngi leen di nuyu di naan Maguette seen comme ci question boobu nga commencé bilan bilan bu rëy la def na liggéey bu mucc ayib euh, liñ ko joxoon naam jaxe na parce que université neexu la yor euh, mooy bariwul te soxla yi dañoo bari mais Maguette Sène ku xool depuis ba mu ñëwee ba tey li mu def vraiment mën nga ko xool ci sa bët ne ko lii moom moo ko def ma joxe ci benn exemple rek. oui muy gañ cadre de vie bi maanaam campus bi euh, ci wàllu set ah ak euh, espace vert yi ah ak environnement wu étudiants yi. def na ci ay jéego yu mucc ayib d'ailleurs bi mu ñëwee département environnement amul woon. d'accord moom moo ko créé tegal ko ci organigramme bi def département environnement bi ministre bi ñëwee barki démb docteur Abdourahmane fàttale nañ ko ko wax nañ ko ko ne lii moom moo ko imprimé donc loolu rek jar na tax ñu jaajëfal ko beneen bi mooy le directeur Maguette Sène def ubbeeku woon. ci waxtaan di teg lépp ci kaw table bi di jokkoo ak ay collaborateur am ci lépp lu muy des loolu je pense que qualité la ci ku jiite de de doon tax solution yu bëri dañ doon jóge sax ci collaborateur am yi donc yooyu rek doy na pour ñu ne vraiment liggéey na euh, fii nag université dafa sensible da ngay defar tey ba mu baax bu subaa nga manquele benn affaire rek coow li ne pour ñu yakaar ne defoo ko dara alors que yaa ngi waslu ci ak di def sa kémtu lay kattan pour que lépp baax donc ñu ngi koy jaajëfal di ko sargal di ko ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fii gis naa ci post Facebook am démbu mu ne alhamdulilah ma ne ah lu dee c'était ouf de soulagement bu dee ouf de soulagement nag xam naa coono bi ak jafe-jafe yi ak ni nga xam ne yoren fii dafa metti moo tax muy wax loolu donc ñu ngi koy ñaanal vraiment di ko sargal et te di ko ñaanal mu am leneen parce que mérito na ko voilà. Euh, mais étudiants yi nag seen réaction yow noo ko jàngatee. réaction étudiants yi c'est une réaction naturelle. gis nga noonu ñu jubilee noonu maa ngi rappelé wu te yor naa vidéo yi noonu lañ doon tàccoo màgget seen di ko jubileel bu muy defar di tabax di leen di jàppale di changer lal yi nekk ci biir néegi di changer matelas yi di defar environnement bi fu mu romboon étudiants yi dañ koy tàccul kon nag tey changement bu amee mu nekk changement boo xam ne du fi kese ne dans tout Sénégal nguur gu bees moo ñëw nguur gu bees moo ñëw leader yu bees ñoo ñëw bu étudiants yi tàccoo c'est naturel c'est normal d'accord voilà alors léegi mu mel ni euh, ndeene Mbodj moom dafay ñëw ci Euh, bërëb ba nga xam ni min na ko ndax coordonné na li nga xam ne moo jël ci cellule communication ak dialogue sociale ca diwaanu Crous université Gaston Berger bu Saint-Louis nekk na itam enseignant chercheur ci département philosophie ca faculté euh, des lettres et sciences humaines université Cheikh Anta Diop bu Dakar parcours am euh, ci wàllum syndicalisme yaa ngi ko doon rappelé léegi si waxtaan wi ràññeeku woon na la bu baax a baax est-ce que mun nañu wax ni euh, mooy nit ki nga xam ni tey jàpp nañ ni war na mën a doxal kudd boobu. waaw tànneef boobu am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax li tax ñu am ci yaakaar te di ci jaajëfal sax kilifa yu mag ñi parce que kii dafa nekk ko Ndéné dafa nekk ko xam ne nitu milieu bi la li ñu ni wax c'est un homme du milieu fii la nekk depuis fii la jàngee. bi muy jàng man ak ñoom génération ñoom Babacar Diop ñoom Mame Biram Wat ñoo nekkoon ci amicale yi di diriger étudiants yi di jàkkaarloo ak administration pour ak rectorat pour changer condition de vie et d'étude yu étudiants yi mu fësoon ci lool engagé wu ci lool ànd ci fula ak fayda ba mu paree it njàng mi mu ànd ci fula ak fayda ba ñu ngi ni di la Euh, mu ngi nii maître de conférence la. Mhm. te itam ci exercice de fonction yooyu dafa anti-syndicalisme ba tey moom moo jiite ci def. Mhm. donc wax dëgg fa yàlla foofu mën nañ ne am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax parce am na put am na liggéey bi te yàgg na bi ci dugal loxoom. ci lu ngeen koy yebee yéen lu ngeen koy xaar ci moom ngir mu jàpp ni tey euh, ci li nga xam ni itam moo jëm ci liggéey bi war na leen ci mën a fekk si ndax dafa mel ni itam lu kud kud euh, luñ ko defar defar am na li nga xam ne itam faaw rek ñu daal di koy jekkali. waa liñ koy njëkk yëpp mooy dal euh, déglu ñëpp boole ñëpp njaboote uuf leen te itam wax dëgg fa yàlla fii dafa nekk bërëb boo xam ne loo bari bari xam-xam loo nekk-nekk kàngam boo fi ñëwee soxla nga ki gën a tuuti soxla nga ki gën a néew diplôme soxla nga sax ki fi nekk te jàngul pour nga mën a réussir sa donc moom xam nañu ko c'est un homme modéré posé euh, dal na donc loolu bu ko mettre en avant rek je pense que dina mën a ko ak ñi fi nekk ma fàttali moom wax nañ ay baax baaxam ci cursusam ci niveau am ak ci trajectoire et fii muy ñëw nag def fekk aussi ay kàngam ñoo xam ne ci wàllu gestion œuvre sociale mhm. kenn mënu leen ci parce que am na sax ay agent kub yoo xam ne jëlee nañ leen ci nommé leen ay directeur de Crous ailleurs am na fi ay agent pour boo xam ne jëlee na leen fi def leen ay CSA ñii ñu def leen ay directeur adjoint mhm. kon agent yoo ñu tam ay kàngam lañ ñoo xam ne boo basé woo ci ñoom di nga mën a réussir sa mission sans problème mhm. mais boo bëggee ñëw def tabula rasa wala nga damay faxas rek da ngay daal di mbëkk ci mur bi mais xam naa ko bu baax xam naa ne lii may wax moom moo a ko gën a xam te bu ñëwee dina ko jëfee. waaw ah, dina ko jëfe ci euh, eh liñ ko fiñ koy xaaree. oui. mooy université ku nekk xam na li fi xew récemment. Mhm. Euh, muy lakk-lakk yi fi amoon ak yàqu-yàqu yi fi amoon. ay kat yi amuñu li leen di yóbbu di leen indi. bis yëpp dañ ko lakkoon mais directeur bii fi jógee defoon na ay effort ba balaa ñuy ubbi mu wutal ñu quatre bis. Mhm. quatre bis nag xeebuñu ko mais par rapport à onze bis yi fi nekkoon dafa xaw a ndaw am na ba tey ay gox goxaan yoo xam ne travailleurs yooyu ñoom ñooy débrouillé wu di ñëw di ñibbi. Mhm. donc ñu ne monsieur le nouveau directeur booy ñëw danga nga indaale ay bus. buy ñëw na indaale ay bus pour mën a compléter loolu nga xam ne ñu ngi koy wut di ko ñaan. xam nañ ne ñu ko koy ñaan xam nañ ne mën na ko. Mhm. leneen li mooy. waaw. condition de travail yi. Hmm. bureau yi doyul parce que bureau yi yu bëri dañ koo yàqoon lakk ko donc vraiment condition yi travail it bu ñëwee amul xaar na jéem a wut solution parce que nag moom bokk na ci ñi nga xam ne bi ñu lakkee université di woote AFIS mu ngi woon ci AFIS yi di waxtaan ak nit ñi di joxe xalaatam pour que ñu mën a am ay solution boo xam ne université bi day ubbiwaat waat ci raay. d'accord. donc je pense que en venant monsieur le nouveau directeur dina indi ay solution yu bëree bat euh, ci yeneen wàll wi ni mel jeexeele waxtaan wi foofu ci li jëm euh, ci wàllum indemnité de logement yooyu tam bokk na ci ay doléances yi nga xam ne yéen tam teggeen ko ci kaw table bi waaw loolu dafa jógee ci décret bu bees bi nga xam ne moom lañ ñu signaloon pacte yi euh, ñu amoon ci benn volet boo xam ne daf ñu accordé indemnité de logement boobu ba tey pour fii université yi am na ñoo xam ne appliqué wuñu ko ah ñun nag ñëwoon bi dafa fekkoon ñu ci réunion di ci wax pour yëkkatiwaat pour jàkkaarloowaat ak kilifa yi wax leen ñu dugal indemnité de logement yooyu ci salaire u nit ñi moi je euh, yaakaar naa ne bu egsee loolu dinañ ko ko jox te xam naa dina bokk si bu njëkk a defal parti yi parce que parti yi nag point boo xam ne am nañ ko muy acquis defal leen ko rek moo war. Mhm. waaw boo leen ko defalee itam source de motivation la day tax ñu gën a sawar ci liggéey bi. Aliou ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax. Euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen itam. di fàttali ni yow yaay secrétaire général bu syndicat autonome liggéeykat yu nekk ci université fii ci diwaanu Sénégal. jërëjëf merci beaucoup.